asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen jaar tey nag bu ngeen gisee fi ma taxaw wala fi ma nekk maa ngi biir tubaa Sandaga yaa ngi dégg bu mu fi ñëwee nag defe naa ne ku war na xam li mu fi indi maanaam Rimka moom mooy feete anniversaire am tey waaye li ci neex mooy dafa am loo xam ne nii wala ñoo xam ne nii li olof di wax feccum bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya daa am xam ne ba Babacar commencé di wax ba tey yore micro ñu ngi koy jàpp di ko solol di koy jàpp ci lu mën a doon ñooñu nag dafay jot nag li lu olof naan loxoy ka jot day weesaloo nga dem ñoom seeti leen muy loo xam ne lu bees lay doon ngeen di ko am ndax Equivox lépp a fa ne maanaam ngeen di ko fa am danañ dem ci ki nga xam ne nii day jaay gerte menuisier bi soudeur métalique bi tailleur bi mécanicien bi du ñu bàyyi kenn taximan bi ñëpp la ñuy seeti ku ci ne wane yow la ngay jaay ah nit ñi gis ko pour nit ñi gën mën a ñëw dañ leen jox ay numéro téléphone ak lépp waaye tey nag li olof di wax tombé waral ay gaaf dafa tombé ak Rimka Couture mu sëñ Abdou Karim Mbacké di feete wàlle am moom nag lañ koy ubbee ndax du mën a ñàkk ndax ah ku bindoon itam xulle dañ lay tëgg ñaari boor Rimka Couture bu ngeen gisee lépp lay ñaw ay kii yére wolof yére tubaab day ñawal bay ñawal président de la république li macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat gën a liggéey bi tey nag émission bi ñuy commencé ci moom lañ ko mën a commencé moo tax moom sax moom laa dajal ci couloir bi nii sama waaw kii mooy Rimka Couture oh, frère Babacar mel ni tey dama dugg si rek dajeeg yow fii. Hmm, Babacar kontaan naa de. lii rëy lii lii na ci man de. ndeysaan ma ne ko lii rëy na ci man. yow sama xarit nga. ma ne ko yow sama xarit nga. te ñëpp xam nañu sama xarit nga. waaw yàlla la yàlla defal jàmm. yàlla yokk ñu sutura. dafa ñu jàmm bu baax a baax a baax vraiment kontaan naa. maa gën a kontaan xam naa li ci kanam ah. damay dugg ci biir ma xool gars yi nu ñuy ñawe ak ci yan affaire la parce que faw ma ànd ak yow ñu dem ba ci biir ah, xullekaay ñu dem faaw ñu dem rek gis gars yi ni ñuy liggéey le Rimka Couture ñi defe naa ci gars yi lañ bokkut ah ñi ñooy ñi ñooy defar bouton waaw bouton du rafet kilifa gi maa ngi lay bëggee ci loo ne tur bi Babacar yow ah baaw yow di sama turandoo mm-hmm. yow gay liggéey fii ci ci Rimka Couture waaw uh-huh. mm-hmm. loolu na solo sama sëriñ bëggee naa la maa ngi delloo bëggee tur bi la Fallou sëñ Fallou est-ce que yow ngay liggéey fii waaw bouton def waaw uh-huh. la ma mën wax ci Rimka Couture muy feetate anniversaire ah dañ koy ñaanal rek mu fekk ko ay diwaan yu bari waaw vraiment ndax borom baax la quoi mhm. borom baax la vraiment. kookoy sëñ Fall loolu la wax ci Rimka Couture ba tey ñoo ñooy defar bouton yi kii moom dama koo fekk muy dagg lii defe naa xamoon naa tur wa de maa ngi lay bëgg. li mooy kii nu mu tuddati. renfort renfort a ngi nii bu nooy baa ngi. Ah, da am bu dëgër am bu nooy. waaw ka Couture loo ma mën a wax ci moom. Rimka a ah, nekk na grand bu baax. Euh, grand bu respecté ay employé am uh-huh. grand bi ñu bëgg quoi. ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram. may ko lu mu bëgg si palaasam am. yàlla may ko ko. am na solo ci barke Seydina. Seydina Ismaïla maa lay bëggee de. waaw delloo ziar naka tey. am nga jàmm Ismaïla. waaw am jàmm bu baax a baax alhamdulilah. tey day Crime mooy fête anniversaire am. ñu nag ñi profité wàlle ci lu bees loo xam dañ ko fas yéene indil téléspectateur Equivox yi ñëw jëkki ci moom ndax nag bu ñu commencé moom dañuy neex lool loo ñu mën a wax ci moom waaw moom xam ku baax la euh, jàmbaar la en plus ku nangoo liggéey aussi tamit quoi waaw lañ ko xamee quoi waaw yow loo yor fii di ko fi liggéey euh, man moom simple laay ñëw quoi ah, waaw très simple waaw ma yor simple bi waaw waaw ah, simple de baax na ak a baax ci doomu aadama dara gënut simple nag ni muy baax ci yëri ci nit la gën a baax maa ngi lay bëggee waaw ñu ngi lay delloo ziar tur bi Omar Omar waaw maa lay ziar bu baax. Lim Ka Couture loo man a wax si moom. ah Karim moom xanaa ñaanal ko bis bi rek yàlla defal ko ci fanu gudd li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom may. man jaga lañ may wooyee. jaga Dieng waaw. jaga Dieng. waaw Dieng sax bu baax. foo dëkk. man de maa ngi dëkk ca côté Xombal. ban dëkk mbulaxteen mbulaxteen bay naa am ñax ba tàyyi xuru mbulaxteen jeex na noonu baax jóge fa dem yaay sama dëkk laay laay la laa sama mbokkum bawal bawal nga jaajëf man bu bawal mag laa moom <laughs> koy ñaanal daal yàlla moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla def di jaay ne Moustapha moom daal nit ku baax la tamit tamit franchement am na foo xam ne xam nañu féete nañu fa quoi waaw vraiment Karim moom wax dëgg yàlla man mënu ma wax ci moom quoi parce que li may wax ci moom lu tuuti parce que xam nga am na loo xamante nii c'était pas évident mm-hmm. nekk nit xamante nii da nga oyof wàcc sa bopp tey boo ñëwoon ci atelier bi doo xam ne moom mooy borom atelier bi sax wax dëgg yàlla tellement que kam ni mu wàccee boppam quoi. Moodu Moodu Moodu fan. Moodu nan Moodu Ngom. Ngom waaw ku bëgg lekk nga. Ngom nga sant. waaw. sama sëriñ maa ngi lay bëggee. waaw ñu ngi delloo bëggee. tur bi Pape Modou Seck la. Pape Modou Seck. waaw. Eh, yow loo yore fii comme ñëw. fii ñu ngi si taxale bi quoi. parfois bu saa yee absenté ñooy taxaw gérer ko atelier bi quoi. ok yaa ma gën a xam. Euh, muy fête tey anniversaire Karim ban genre nit la. waaw Karim wax dëgg yàlla sunu grand frère la sunu nijaay la parce que yàgg nañ fi quoi xamante nañ bu baax euh, Touba la jógee ñëw fi moom sama ñoom yaay ñoo nekkoon Touba xamante nañ bu baax sama yaay boole ma ak moom booba tey rek moo li ma fi ñëwee quoi maa ngi gis avancement bu baax war dëgg yàlla. di ko ñaanal rek li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal. Euh, lu mu bëgg fu mu bëgg egg bu gëmee boppam yaakaar naa dina ko fa egg nag gëm na liggéey bi wax dëgg yàlla borom baax la quoi. am na solo Mor loo mën a wax ci Karim. Karim bon waaw man bu ma ko xamee nag yàggul quoi man yàgguma fee ñëw yàgguma fee ñëw quoi semaine laa fenn quoi wante nit ku baax la quoi baax la wan quoi xam nga ma koy ñaanal yàlla yokk ay xéewalam xam nga ba ñu mun see jëriñ ak keneen ak keneen ak ay doomam ay waajuram ñëpp jëriñ si. Kumba mu mel ni Rimka Couture mooy fête anniversaire am tey. ñuy profité ci benn émission bu bees bu ñuy laas ci Equivox su ñëw seet ko Rimka Couture loo ñu mën wax ci moom en tant que nit boo xam ne yéen a nekk fii di xëy. waa Rimka de nit ku baax la fonk liggéeyam da jàppee boppam comme ñëpp li mu yéene boppam aussi moom la yéene ñëpp moo tax tey bésam ñoo ngi koy ñaanal yàlla may ko fan yu gudd wér li muy mbëbët yàlla may ko ko euh, suturaal ko suturaal ay njabootam bàyyi leen ba si kanam ak kanam. kilifa gi maa ngi lay ziar. yàlla na yàlla nangu ziar. bi man àll laa tudd àll seen. waaw euh, borom seen couture Abdou Karim sama xarit la ñoo taqaloo benn place wax dëgg yàlla moom nit ku baax la te tamit euh, nit ku si la daal franchement te tamit moom wax dëgg yàlla zéro problème daal. Euh, ba tey ñi liggéeyandoo ak moom la kilifa gi maa lay ziar. waaw naka Moussa Ba ku baax. tur Mbow. Mortala Mbow yow tamit defe naa yéen yow atelier nga yore fii di liggéey tey muy fête anniversaire moom Rimka loo mën a wax si moom. Karim Karim ku baax la dëgg yàlla moom nekk na nit koo xam ne ku yaatu la ku mën a ñëw fii. moom bu xatee sax daf koy boole ak ñun ñu liggéey kon donc nit ku baax la dañ koy ñaanal mu dund cent ordina cent cent onze ans sans ordonnance parce que nit ku baax la yaatu na ci liggéey bi daal yàlla defal ko jàmm baax baax fii la Rimka Couture di accueillir ñëpp client yeeg cliente yeeg tout le monde kii xale bu jigéen bi nga gis moo fii nekk tout le temps maa ngi lay ziar soxna si maa ngi dolli ziar tur bi coro coro nan coro Diouf Diouf uh-huh. bokk mélas Diouf boo gisee Rimka di fête anniversaire am ñuy lancé benn émission boo xam ne bu tudd wanteer wi la ci Equivox TV parce que yéen yombal gars yi ñu ñëw seet si ko mu tombé ak bisu anniversaire am loo ñu mën a wax ci ki nga xam ne mooy sa patron di la liggéeyloo. waaw sant yàlla rek ak tam di leen gërëm di leen nuyu tamit di leen gërëm di sant yàlla bu baax a baax Rimka sama mag la waaye comme papa si man parce que nit ku nit ku baax la daal ku ñàkk problème ku ay waajuram gërëm tamit aussi. waaw yaayam gërëm na ko papaam gërëm ko magam ay magam tout le monde ñëpp ko gërëm te lu mu ñàkk rek doomu aadama yi ñoo ko ko xañ di ko sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu yokk ko ba ba mu yëg ko. li wax ne Karim day ñawal ba à l'étranger am na ay président man gis naa fi ñu koy commande ñaw te loolu lépp mën a liggéey ak fonction liggéey koy waral madame bonjour bonsoir. bonjour. ton la si Sissoko Mabinsi. Sissoko Mabinsi. oui. tu es malienne ou bien ivoirienne. je suis guinéenne. Conakry. Conakry. Votre relation avec Rimka Couture Ça un peu duré, ça fait plus de deux ans. Rimka, je l'ai connu derrière ma maman. Okay. Il fait bien son travail. Mm fait bien, je l'aime bien, sa façon de faire des coutures. Mm -hmm. Donc je l'apprécie beaucoup. Mhm. Je veux, mhm. qu'il continue dans ça. Peut-être un jour Dieu va l'aider. asalaamaaleykum téléspectateurs yi nuyu woon naa leen sànq nuyuwaat naa leen. li ko waral nag mooy lu bees la ci Equivox ak Babacar du mën a ñàkk yaa ma gën a xam ak El Hadj sax xulle bu la neexee sax nga raxaale Amina ci biir Amina Diouf mooy lan loo xam ne la dañ ko war a indil sénégalais yi wanteer lañ ko dee maanaam nit ki dañ koy fekk ci la muy liggéey ñu fekk ko ca waxtaan ci ak moom wane ko bu keroogee nag lañ koy laaj ci weexal du bëri parce que booy wanteer da ngay jaay lu baax. te mu bañ a seer bu ko defee gars yi dinañu mën a ñëw tey nag olof ko wax tombe waral ay gaaf xulle mu tombe ci Abdou Karim ah mu sëriñ Abdou Karim mu koy nuyu si di ko ziar di ko ndokkale di ko wax happy birthday to you parce que tey la bisu anniversaire am moo tax ñu ñëw tey Touba Sandaga troisième étage ngeen gis li ma sol nii xam nga yi ma su koo sol tamit xulle ah ma toog kii nga xam ne mooy doomu ndeyu Jibi Dramé muy nuyu soppeem yëpp ñoom Pape Bokar Diouf ak waaja ca asalem borom Swiss Gold Tidiane daabo ak Pape Diouf bu génération consciente ñoom Wali Balago Seck du Xarañ loo ñoom ñëpp saaliw xulle ku ci ne xam nga kan mooy Rimka Couture ndax wallu ñaw maa ngi lay bëgg di la ziar mon moo mon frère. ah waaw ah bon <laughs> asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk turam ak santam di sant sama yaay di sant sama yaay di sant sama yaay encore une fois di gërëm sama papa sama baay buy ndax lii yëpp ñoom la euh, di gërëm tamit. nit ñi ndax euh, nit manul dem sans nit ñi waaw ndax ñoom ñoo lay dooleel ñoom ñoo lay gunge ndax tey nit dañ naan nit bu bu bu ñemee dafa am ñu la dee di ñaanal ñëpp jàmm rawatina nag comme ni ma koy waxee à chaque fois rek Pape Bokar Diouf muy sama kilifa di kilifa Pape Diouf di kilifa Yékini ndax képp ku képp euh, ku xamul euh, Pape rek dégg nga turam mais dama dama am nu ma mel ak moom mu nekk koo xam ne daal nee na ma yow doxalal rek. doxalal doxalal rek. léegi ah, dama dama lay dagg fa parce que yooyu nañ ci ñëw mais dama bëgg balaa ñu cee ñëw parce que dafay baax fi fi nga jaar am solo Rimka fan la dëkk lu ko dugal ci ñaw fu mu jàngi métier ku ko jàngal métier ak nu mu dund tey ba yàlla def mu nekk koo xam ne xam nañ ko au niveau international macha allah yàlla na gën yokk ci côté ñaw. waaw Babacar moom dama am kontaan parce que li ma laaj nii. moo dama doon bëgg nit laaj ma ko ndax dem naa ci invitation bu ne. ku ne dalal na ma mais tey gëm naa ni gëm naa ni Babacar ndaanaan nga parce que lii maa ngi soog a gis nit ku ma ko laaj macha allah yàlla na la yàlla defal jàmm waaw man maa ngi dooree Touba Touba laa jàngee métier fu ñuy wax déedéet maa ngi juddoo Pikine yaroo Géejawaay sama maam nag moom ma yar moo ma jàngali métier waaw moom it maa ngi koy sant bu baax a baax a baax yóbbu ma Touba ma jàng fi métier waaw naan daal li may wax nit ñi chaque jour parfois ñu gis nga egg fenn fi wala nga toll fenn fi mais dafa am foo jaar dafa am noo galéré ma koy ñaan nag jeunes yëpp képp koo xam ne bëgg nga egg fen fii aussi nanga nga nanga na nga daj coono na nga na nga na nga ko na nga ko ko fayatin daal na nga na nga jàngi métier bu baax a baax ndax c'est très important ndax waaw bañ a sàcc ci métier ku dégg ku dégg ni may waxee wala nga dégg may wax di nga xam ni kat Karim mii li muy wax dëgg bu wér nga la Touba laa jàngee métier waaw ñu jàngal ma fa nag métier parce que boo déggee may ne ñu jàngal ma fa métier ñu yar ma fa parce que métier bu njëkk ba boo yóbbu sa doom sax pour ne ko pour ma jàngale métier da nga koy wax yaral ma ko waaw léegi ngay dégg ñu naan laay métier la nit yi daange mais yaral ma ko nga dégg yaral ma ko nag lu ci biir yaral ma ko mooy dinañ la yar dinañ la tete dinañ la jàngal métier lépp mu ci biir parce que nit boo boo yarul doo mën a téye sa métier moo tax yar mooy jiitu mooy jiitu lépp waaw yar ak teggin mooy jiitu te loolu yëpp suñu borom dimbali na ma ki ma jàngal métier muy Mor Samb mi ngi ba Italie maa ngi koy nuyu ndax lii yëpp moom la vraiment tey bu ma demee ba rajo wala télé di ma invité wala nit di ñëw di ma jox micro rek à cause de moom la moom moo ci jàpp ba dara dul dara vraiment ma nekk xale bu ndaw mu teete ba bi may tegal machine may ñaw mënu ma woon a jot euh, mënu ma jot machine bi dañ ma doon tegal ñetti naay pour mu mën a jot machine bi kon loolu vraiment kon ndikk xaar na ko fa te loo xaar rek suñu borom euh, jàppale la ci. nga jóge Touba ban année ak bi nga ñëwee Dakar koo fi njëkk a nekkal liggéey ak moom da nga ñëwoon continuer jàng métier wala da nga ñëw commencé am am ko koo nekkaloon di ko liggéeyal mu lay fay wala. waaw bi ma may ñëw man naata ber nañ ma bi ma ñëwee maa ngi njëkk waaw waaw nañ ma ndax aussi comme li may koy wax rek loolu laa doon waxaat sànq ma ne nit ñi dañu a toog bañ leen di ber ndax dañ maa ñaanal bi ma ñaanalee sama patron fekk muy dem Italie ma ñëw fii ci samay waajur bi ma ñëwee maa ngi njëkk a embauché ñu may fay quarante mille francs par weer waaw loolu yëpp aussi da ko fa xaar rek àdduna moom loo xaar fekk ko fa waaw di ñaan nag jeunes yëpp képp koo xam ne sax bëgg nga raw Karim wala bëgg a mel lu Karim mel na nga ko fa xaar ndax loo xaar rek suñu borom dina la ci jàppale bu soobee yàlla dina la ci jàppale. ok euh, sa atelier boobu kañ nga ko njëkk am. maa ngi ko njëkk a am 2007 bi may ñawal sama maa ngi doon ñawal Boubacar Diallo mi ngi doon def émission bi muy def Millennium Star. ñaw ñaw yooyu ñu ci njëkk a ñaw boobu man maa ngi embauché atelier bi ñu ma doon embauché ñaw yooyu man maa ko dagg maa ko ñaw. waaw boobu Boubacar Diallo mi ngi doon ñëw Damel Couture mi ngi nekk fii Rue Mohamed 5 parce que nit looy wax rek na am na na am <laughs> dama ba tey Damel Couture. Damel Couture foofu laa nekkoon ci Xaadim Fall moom it de passage maa ngi koy nuyu. ndax euh, tey daal ñoom ñëpp dañ leen war sargal nuyu leen parce que tey ñun bu ñu demee ba yor ay atelier wala yor ay nit di leen embauché rek dama koy wax benn jour ma ne pourquoi pas ñun bu ñu toogee ci télé yi ak rajo bi ay ku mel ni essentiel ku mel tey ñoo fi nekkoon di jël ay nit ku mel ni ay Xaadim Mbay plateau broderie parce que tey ku mel ni Karim ku mel ni keneen ak keneen ak keneen ku ci nekk jaar nga ci ñooñu kon ñooñu dañ leen sargal di leen ñaanal yaa ngi dégg ñi fi ñi nekk ñu ñaan suñu borom yàggal leen fi ñi fi jógee ñu ñaan suñu borom xare leen àjjana comme ku mel ni Issa Sène donte ne xaw ma ko mais référence la ci ñaw ren référence la référence la tey man bu ma mënee jël cinq téer wala ma mën a jël quinze téer dañoo dañoo xool ci ñooñu dañoo xool ci ñooñu tey waaw gémmin bu waxul dëgg wax fenn mais tey kenn kenn xalaatul woon jël ay nit di leen fay di leen embauché tey ñun bu ñu demee ba ñeme jël ay vingt personnes di leen embauché di leen fay ci ñooñ lañu xool di leen ñaanal seen jàmm yàgg seen njaboot tamit fekk lépp ci béj yaay Seydina Muhammad waaw wax dëgg dëgg du rombaay nopp loolu nga am na su nit da ngay am reconnaissance xulle parce que tamit ah nit ki jaar ak yow fenn fi wala mu def ci métier leen dafay baax nga di ko tudd di ko delloo njukkal Touba Sandaga ban année nga fi njëkk a ñëw pour ba am fi atelier maa ngi fi ñëw 2008 waa waaw 2008 laa fi ñëw boobu maa ngi ñëw yor ak sama benn machine defe naa ñaari machine laa fi ñëw ba tey gis nga ni mu demee waa di wax rek encore une fois adduna daal lépp da ko fay xaar rek te aussi teg ko ci ngor ak jub ak ful ak fayda surtout loolu waaw tey ku fi egg fenn fi rek looloo la eggale parce que dañ leen di classé dëng nag des fois ñu ne tailleur yi wala ouvrier yi sax maa ngi jéglu mais des nit ñee koy wax. surtout surtout waaw mais xam nga àdduna moom kenn mënul matale lépp mais nag da nga fexe ba bu ñu tuddee fukk juróom-ñeent yéen a nekk lu baax benn bi ci des bonul benn bi ci des bon nga mën xool nan nga koy retouché nan ngay jaa fexe kat ah lii kat mooy gàkk-gàkk bi xaaral ma xool nan lay fexe ba jubbanti ko ndax àdduna kenn matul ndax ay xale lañ bëgg a engagé wu bëgg yor ay nit. di ñaan nag aussi président de la république mu xool tamit ci xale yi nga xam ne ñu ngi yor ay atelier di embaucher ay nit te ñoo ñuy embaucher wala moom miy embaucher mënoon naa jël gaal gi wala mu dem defi leneen ak leneen te tey mi ngi toog di di di di waaw di liggéey di ñafe te kon ñooñu dañ leen war a xool ku mel ni yow ku mel ni keneen ak keneen waaw ñu jàppale parce que tey am na jeunes yoo xam ne ku leen jàppale rek walaay azim yàlla jàppale la ndax ñi ngi toog di jàppale seen i mbokk di jàppale ay employés yoo xam ne tey ku ci nekk am nga ay njaboot am nga ay doom wala am nga ay waajur te ci cent cinquante mille yooyu wala ñu lay fay ci ngay suturlawu ci ngay sutural sa doom ci ngay fay sa sa jàngu xale ci ngay dund kon ñun dañu war a jàppale tamit encore une fois. tey wax naa ko léegi parce que li tax ma ne inter euh, euh, tailleur international sax parce que dama am ay écho que ni dafay am ay commande ñaaw yoo xam ne day jóge sax à l'étranger di ñëw ci yow yoo xam ne sax presque est-ce que ëpp lii nekk Sénégal loolu da nga koy dëggal wala déet. waa loolu sant yàlla loolu am na waaw loolu am na vraiment di nuyu tamit waa Guinée encore une fois man du ma du ma du ma du ma wax ba jeexal te du leen nuyu waaw Guinée Guinée Conakry rawatina nag président de la république Alpha Condé donte ni xaw ma ko mais ñawam dama koy ñaw mu koy sol yaa ngi dégg euh, ak euh, ay ministres yi nekk foofu vraiment bërki démb la seen commande dem xam nga tey bu la ñooñu reconnaître te yow vraiment nga ne ci ñaw bi loolu da ngay sant yàlla waaw ba ci ay Niger États-Unis su ba Italie France ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen di leen gërëm Guinée moom dafa nekk loo xam ne vraiment man mooy sama. dama waaw mooy waaw sama mooy sama pays. di di wax nag président de la République Macky moom it mu ñëw comme def ni Alpha Condé def ndax ay xale yu ndaw fi di def lu rafet di di ñaw loo xam ne wallahi azim mën na koo sol mu rafet trop. Uh-huh. waaw ndax man maa ngi ñawal ay kilifa yoo xam ne duñu ay sénégalais ñi ngi ci ay yeneen réew te ñi ngi koy sol ñi ngi koy safoo kon daal mag yi ñu koy nuyu monsieur le président maanaam li ñuy defare fii ci réew mi comme gaa yaa ngi koy ñëw di ko jël si defe naa moom dina di gën a yey ci nga ñawal ko de. dëgg yàlla wax dëgg yàlla ndax euh, yor na ay ndaanaan de moom ndaanaan la président ndaanaan la ñu xam nañ ko mais nag yor na ay xale yoo xam ni ku leen jàppale walaay azim ñu dem waaw ay ndaanaan yu baax a ay ay ndaanaan yu mag a ngi fi waaw. relation ak Alpha Condé ci kan la jógee. waaw mi ngi jógee ci sama benn jigéen waaw te ma nëbbu turam rek te ma nëbbu turam rek <laughs> waaw sama jigéen mu jege leen trop nag waaw wala ma jaar ci tur bi rek waaw ku ñuy wax bébé bébé Diallo bébé madame Kayta ah bébé maa ngi koy nuyu encore une fois waaw vraiment su may wax ci moom sax damay damay damay damay xaw a triste tuuti ndax daf may jàppale tey tey tey bu ma ko fëggoon ni ko bébé million laa bëgg balaa jant bee soo mu jox ma million kon xam nga loolu dafa dafa rëy waaw nit yëkkati ay million di la ko jox yombul te da nga ko naan bébé tey dama soxla 5 millions dama soxla nangam da koy yëkkati compte jox la kon loolu yombul ci réew mi te wax dëgg yàlla mi ñu koy defal mais nag euh, bébé dafa am ku ku ma boole ak moom muy Seydou Daabo Seydou Magu Tidiane Seydou tamit ñu ko ñaanal borom Suisse Gold waaw Babacar Seydou foog nga xamante ak moom nit ku baax la non nit ku baax la foog nga xamante ak moom wallaay Azim nit ku baax la te man tamit vraiment euh, tey Tidiane xëy na moom lañ ma xamelee mais Seydou moo ñu booleeg ñooñu ñëpp tey muy ku mel ni man ku mel ni Mamour Joxaane maa ngi koy nuyu di moom it de passage ak keneen ak keneen. loolu mooy ànd ngor am na solo kon jeunes yooyu nekk Sénégal di góorgóorlu ñu ngi leen di ñaan ñoom tamit mais ba tey su ma ak yow tey yaa ngi yore atelier macha di ñëw ci côté emploi actuellement Karim ñaata nit la yore leen fay. waaw ëpp ëpp na quinze personnes di ñaan yàlla nag mu ëpp at loolu sax ndax ñun tamit nekkuñu fi lu dul waaw liggéey liggéey rek lañ fi nekk tey bu ñu wóoree nii tey mën nañ yor cinquante personnes pour liggéeyloo leen te mën leen a fay dañ koy jël man ragaluma ci loolu dañ ñaan yàlla rek suñu borom kàttanal ñu dafa ñu xéewal yaa ngi dégg ba ma ba mën a jël ëpp loolu sax wala asi man loolu mooy sama objectif man saway waaw man ragaluma ci li may li may dugg nii parce que lii laa xam man xawma lu dul ñaw moom laa xam yaa ngi dégg yàlla nag dimbali ma ci ma ci ma ci ma xamante ci ku ne sérieusement parler yow xam nga li may wax waaw xam nga li may xamante naa ci ku ne bureau bu ne laay dugg kon ci la ñaw laa xam loolu loolu la ma yàlla jagleel ragaluma ci moo sañoon wallaay azim employé cent personnes léegi bu ma ñëw ci côté salaire bi euh, du tudd salaire kenn mais est weer dina dee am ci koo xam ne dina am salaire cinq cent mille wala trois cent wala deux cent mille. waaw ah, bien sûr am na fi am na fi waaw parce que comme ni ñuy liggéeyee parfois par marquage la lu ñaaw gën a bëri rek téer bi tamit ni ci gën a gis boppam te bu ci gisee boppam ñu ñu ciy gën a gis suñu bopp waaw léeg-léeg mu am fii dañuy ñaan yàlla sax muy gën a sax di fi am million man téer wallaay azim yéene naa ko lu ne ndax xam naa dama ñaw nekkuma ci koo xam ne dama ñëw rek ubbi sama atelier dama ci galéré ñaw ba yàlla def li muy def kon tey téer defe naa mérité na lu ne man téer bu ma ko million xeeb naa ko barke Seydina Mohamed am na solo léegi bu euh, ma ñëw ak yow nag ci côté relation artistique bi parce que am nga nit aussi yoo ne am ngeen relation ay dafa mel ni ay ñoom Wally Seck ay Pape Diouf ay euh, Djiby Dramé ah ak ay mbër sax. waaw waaw waaw foofu moom dinaa fa sawar tamit ak si ku mel ni Djiby Dramé dama koy wax à chaque fois di ko tooña ma ne ko yow yaay sama Youssou Ndour parce que nag euh, man dama bëgg nit ku sincère. nit waaw nit ku sincère aussi nit koo xam ne tamit day fàttaliku démb Djiby Dramé ba artiste bépp ñëwagul. moom laa njëkk a xamanteel te moment boobu mi ngi nekk mi ngi am riir ñëpp di ko topp yaa ngi dégg euh, sama xew sama ngénte taaw Djiby Dramé moo indi orchestre am ma ni ko sooy damay tudd mu ne ma eh sama yoon nekk ci damay ngénte loolu yàgg na sama ngénte taaw kon nit ku la mënal lool sa nit nga ñeneen ba ñeneen topp ci ñeneen topp ci ñeneen topp ku mel ni Wally sek moom it vraiment bi may téye grand théâtre dugal ma ci ci ci chambre bi mu nekkoon ni ma dinaa la dinaa la woy ba ñëpp xam ni dina la woy barke salaatul faatiha yaa ngi dégg ma ne ko ah grand mu ne ma non rim tijaan ma booleeg yow mais dinaa la jàpp waaw boobu léegi tamit bàyyiwul fu ma gisee bu dee ñaari baat sax dina ma dina ma dina ma xool kii Karim la di wax ak man waaw loolu aussi dafa rëy Pape Diouf it la même chose Pape Bokar Diouf moo ñu moo ñu téye moo ñu téye ci bureau ni ma jàppaleel ma jàppaleel ma kii moom ñu am ay relation yu baax kon fii kenn amul xaar ma yàlla dafa fekk rek euh, lu waay nekk ba am ci tur rek foog ñëpp ñëw waaw mais ñun ñëpp ay xarit lañ te ñun ñëpp a yéene jàmm métier ñaw métier artiste ak euh, li ngeen di def nii wallaay azim ku soxor mënu ko non ku soxor mënu ko barke Seydina Mohamed borom xol yu rafet rek ak ci nekk parce que ñaw aussi bala nga koo mën a def tamit di ñawal nit muy rafet foog sa xol rafet ah foog sa xol rafet artiste a woy mu neex foog sa relation wala waaw waaw mbëri waaw comme ni ma ni ma ko amee ci waykat yi rek mbëri ku mel ni Modou Lo moom it wax dëgg fa yàlla ci mbëri moom laa ci njëkk no astafurlah astafurlah maa ngi juum ku mel ni Yékini Junior ñëw na ba Touba Sandaga bi fekk ma fi ak maa Niang ci bi bi ñuy bi ñuy door nag laa wax de bi ñuy nekk seen diggante Pape Bokar moo leen ni dem leen Karim ñaawal leen boobu ñu ngi waroon na parce que Pape Bokar moo yoroon seen lépp Yékini Junior ak Malick Niang ñoo ñëwandoo sama atelier boobu benn place la amoon fii ñëw fi yàlla def tamit ñu ko gisee xam nga nit ñi amuñu jot tamit euh, comme ku mel ni Modou moom laa fi mujjee ñawaat ku mel ni El Hadj Soxna sama grand. waaw El Hadj Soxna douanier. léegi fi may ñëw ñëw di fa jeexale anniversaire bi tey nga di ko féete ah ñu lay wax happy birthday to you looy wax say tey ñi ngay liggéeyandool wax nañu ñoom ñi nga nekkal fii di leen fay ak ñi nga xam da ngeen a bokk milieu bi di liggéey ku ci ne def na seere bu rafet ci yow sa bisu anniversaire ñoom loo leen di wax. sama téeri di leen ñaanal rek ñu ñu gën a ñu gën a jëm ci kanam gën a jàpp ci liggéey bi gën a jàpp ci liggéey bi aussi yombul ki nga xam ne daf leen a gérer mu nekk xale bu ndaw comme ñoom xam nga euh, du du du kàttan wala kii moo tax mu yàlla teg ñu ci kanam waa yàlla la soob rek te di ko di leen ko ñaanal ñoomit it ba liggéey suñu borom teg leen jox leen jox leen jox leen cër bu ndax ndax ñun ñun ñi tamit dañoo jaaroon ci ay nit yàlla xëy tamit ñu yor suñu yëfu bopp loolu tamit laa leen di souhaité parce que dama leen koy wax chaque jour euh, euh, nekk di embauchement kii la rek liñ naan xawma ut buntu la rek mais boo ko amee rek waaw boo da ngay demal sa bopp di di nuyu nag sama soxna encore une fois Fatima si waaye di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax ndax vraiment waa anniversaire bi def na ci lu ne def na ci def na ci lu ne def na ci lu ne def na ci lu ne wallahi azim def na ci lu ne day wecceeku wecceeku ba may tiit sax ay ay def na ci ay millions la ci def ah Fatima eh ma xool gàtt bi ñi ay rakkam lañ ay séeréer lañ ay rakkam lañ waaw Equivox Equivox waaw Equivox dama leen di bàyyi ak sama waajee rek waaw dama leen koy bàyyi rek ndax moom moo ni ma woon bul dem fenn toogal fii dina baax. sëñ Abdou Karim la xonloo. barke salaatul faatiha kilifa la du ma ko waxal lu ma lu mu waxul moo ma moo ni ma woon toogal fii bi ma koy wax mi ngi golf këram golf fii mu ne ma toogal fii mu ne ma too mu ne ma toogal fii dina baax defe naa moment boobu pour gis ko yombul woon waaye man amoon naa chance bu bu ma ñëwee damay toog ci tànkam dimanche chaque dimanche këram laa daan yendu mu ne ma toogal fii dina baax. kon moom it maa ngi leen koy bàyyil ndax moom ci moom laa ci moom ci moom mooy sama wasila te wallaay azim fu ma ko mës a woo it na ma fa barke siraatul faatiha kontaan naa ci yow Rimka Babacar yow man maa gën a kontaan ci yow yow yàlla nañu yàlla defal jàmm rek may may doguma la may fàttali nag ne Rimka Couture ki tax ma xam ko mooy Samba Kara Samba mu borom daaru maa ngi koy nuyu di ko ziar ndax it ku la defal lu baax da nga koy wax moom laa xamante lu yàgg fii Touba Sandaga après mu gis ma ma nekk Lutte TV maa ngi door mu ne ma yow fa mu yóbbu la ci Rimka Couture mu di la ñawal moo ma indi fii defe naa benn suba kon Samba mu nga Turquie maa ngi koy bëggee Samba géejawaay la dëkk. waaw nañ yàlla daal lafal ñu cat bu baax a baax a baax yàlla yokk ñu suñu soxna si ñaawal si tamit ami waaw ami vraiment kontaan naa tey da ma bett mais xam nga man moom man bëgguma sax ku ma bett ndax sinon kon dinañ def lu gën a garaaw dinañ def lu gën a garaaw wallahi azim mais kontaan naa bu baax a baax a baax a baax baax ak sama ak sama copain xule xule xule kontaan naa yàlla leen yàlla fay yàlla yàlla taxaw bu baax a baax. kon noonu la demee woon gars yi lu bees la ah waaw xam naa nag gars yi nañ ne Babacar fi mu génn tey du làmb rek laa war a mën a wax pour man war naa mën a wax ci leneen te incha allahu bi képp ku yor loo mën a yor wax naa ko sànq hélas bu dee da jaay caaf woo ma yaa ngi dégg loo mën di def rek da ñuy woo ñu ñëw fekk la fa nga ne waneen la la ngay def pour nit ñi mën ko gis say mbir di a dox parce que tamit Equivox dafay nekk pour Sénégal yëpp maanaam lépp moom bu soobee suñu borom ñu nag yéen a koy bokk di kontaan ci ñëpp El Hadj Diouf de production Equivox TV maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu ka nga xam ne moom mooy borom Paris la France Cheikhou Omar moom tam du ma ko fàtte di ko nuyu bu baax a baax waaye xulee ah taalibe sëñ Babacar Si wala taalibe maam Baye Niass lépp benn la maa ngi koy bu baax a baax ak ami nga xam ne borom Gaye Ndiaye ami Diouf moom tam maa ngi koy di bi yëpp di nuyu la DG da Vox Arena Aline Badara Diouf waaye tamit di nuyu la PDC waaw moom mu ngi ci àngal bi toog rek bëggul ko waxtu rek mais maa ngi bu baax a baax di ñaan jàmm Sénégal di wax ne daal xulle tey fii moom ku bëgg yëre yu baax ay ñaw ñëwal Touba sànnaga numéro yi bu soobee yàlla dinañ leen ko afficher ci écritel bi ngeen gis ko muy Rimka Couture du mën a ñàkk di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñu doon suivre di ñaan jàmm yàlla na ko yàlla def Sénégal